xanaa fii daa mën ko tey salaamaaleykum maa def waay fuusa nekk ci kër gi na ko ñëw waaye bàjjan am na waaye bàjjan amna na am na amna yoo xam ne ay gor lañu amna na yo xamne bañu ne suñu dom dañu dimbi ci carité gu baax diw leen dàmpulin waaye am na xam nga booy war a jënd sa ñu jox la xaalis ne la dàmpal sa doom bi nga war koo dàmp toog fi nga toog dem jënd karité ñaar fukk naan da nga koy daan xam nga kooku du xam fu waaye kii ku waxoon xam ne xam ne dàmpal bu may génn biir di ñëw xaaral may génn biir maa ngi ci biir comme mujj yi man bi taaye dem naa entrée salaamaaleykum aleykum salaam oh yow Firdawsi <laughs> feneen la ci yam yow bërëngul lii. man kay dama bërëngu bërëngu day yomb dama daan nii. <laughs> dégg nga loolu ca tournée ba <laughs> ci la ne. li nga ay bërëngoom bi waaye li taxawul mooy jiitalu ma rek. ah la ma la jaral lool bëgg mu yomb rek. bëgg mu yomb xoolal dina xool. <laughs> est-ce que su ma la ko delloowee doo daan. bu ma ko def. yow fii ah. ba ma ma tëdd nii rek. man na sama borog yi danoo bari trop. est-ce que tamit doo simbi ñaari. bàyyi silent bi kese. xam nga xam nga problème bi dangaa naan comme jiitalu ma. Hmm. damay bañ yëf yi di ko tël. boo dee bu ko jëlee bii borom bu oyofee danañ taf borom sol ñaari borom. naan te nga ne bokkoo ci. du a dugg ndax dama ko yeewati tànk bi tey. léegi ma sàngu balaa dara feeñ. waa léegi léegi léegi waa dindi benn bi dafa tàng. defal ndànk yow tamit. ah man damaa yàkkamti. man yàkkamtuma defal ndànk rek. boo boo koy ay waay di nga gis xaaral <laughs> maa la gën a lii. laa ilaha illallah yaa nga léegi nag. jox ma wee jox ma wee ma tegal la voilà ah, waaye waxuma lool de. loo waxati. lii mooy du lii mu doon nii. lu mu la jox. lii. waaw su <laughs> ma la ko waxee lii àdduna ba ma. lu mu la jox rek loolu la. tey ngaa bàyyi rek <laughs> ay bu ma la waxee li ma jox man nag sa kii nii sa kii la tax fii kii wóolu ma ko dara de. mais des fois. kii xanaa waaw defam yi bëgg na nii <laughs> moom. eh eh bàyyi jàmbur. ah kii damaa yaakaar yenn saa yi donc léegi na ma may nag comme ñëw na ah moom na ma may ma tëdd moom jégal. nekk yi tey. maa ngi nii maa yaa si jàmm. ah tey moom da ak tàmm. est-ce que xam nga ne. ay fan ngi dama leen ñam. ndax la. damaa xam. dama war a lu. lu ne lekk naa ko daal ma ne rek. maa du glace bee taxaw. glace bi xam nga daa taxaw xaw ma daa bañ a formé waaye nee na ñamul. ah ah waaw. kon nag jàpp ne tey dina mel ne banaana. dana ne. banaana. man nag gis sa kër gi dama ko war a ragal. 手说手里拿一来不别的，拿木处理去。放。